ba dee bu dekkee ba ko. ah. mel ne lu mag di wax ba bu dekkee ba waaw loolu far la kii Cheikh Ahmed la. juddu ci xam-xam màgg ci xam-xam nàmp ko ba di ko gàll suy dox sa xam ay dox. mais sa guddi gu njëkk rëbës noo ko dundee. Euh, neexut ma woon nag parce man dama bëgg di tëdd ci lalu 2 million di bérégu di filaale xam nga su ma nelawee ba soddu di sant yàlla mais dem foo xam ne yaag ay góor a koy bokk pour la première fois su ma ba may lël la ma daloon. bu fàttee abonné ngir man di jot suñuy notification xeeti góor laa bëggoon Médoune euh, Fadel bëgguma xeeti góor franchement ñetti weer yu manqué dafa ëpp noo ko dundee man su rëbës moom sant yàlla laa ko dundee parce que nekkul ne dama def euh, crime yi nit ñi di def bañ a dem kaso defuma ko man ci xam-xam laa wax problème de interprétation la rek sénégalais yi ñenn ci ñoom comprendre ma d'accord ak man ñenn ci ñoom bañ justice bi ginnaaw bi ñu ma dóoree agressé ma mu bàyyi ñooñu ba tey at mu ngi leen di seet même justice moo wax ne dama heurté jàppuma ma tëj ma maa ngi gërëm justice boobu noonu. ndax di nga li nga waxoon. man dinaa wax lu raw loolu ci xam-xam ndax xam-xam laa gëm. waxuma xam-xam te li ngay waxoon ba dem rëbës ndax di ko waxal. non xam-xam laa waxoon man xam nga dafa des yoon noo ko déggee mais man xam-xam laa wax xam-xam ba ma waxoon danaa wax lu ko raw question bi mooy da ngay laaj ñi ma yóbboon rëba su ma waxaatee lu ñu déggut dañuy am dal ak tey ñu waxtaan ci xam-xam wala den may jëlee ci lislaam yóbbul ma procureur loolu mooy question bi. wàllu dama leen ko doon proposé suggestion la bëggu leen retiré naa propos yi. kooku moom la mais Cheikh Ahmed du nopp. mais comment rëbës. rëbës moom man garde yu baax laa fa gis garde yu jullite yu am jom may ñaan sénégalais ñu bàyyi xel garde pénitentiaire li ñuy wax demeewul noonu li ñu waxul looloo am bari nañu génnee rëbës na rëbës gi seen fii bi seen affaire la man yàpp laa doon lekk ak firi ndax damaa gëm liggéey ba ma fa tëddee ba ni may génn suma liggéey moo ma doon teral musuma lekk jaga xaw ma lu mu saf. su doon cinquante laa nekkoon 31 laa jaar. ñaata personne 31 107 ah non 50 euh, 107 mais 31 aw ma parce que booy den ma doon tuux ba may miir. tuux ma mën a compter nit ñi. dañ may xër te man bëgguma cigarette. ba pare sàmm di ko nekkoon xamoo nombre nit ñaata xaw ma ko mais 50 107 la xam naa ko. 107 personnes. waaw mais salle bi dafa gudd nag. mais loolu kon boo nee bu fekkee da nga ni neex da ngay nax sa bopp neexul woon. non neex bi ça dépend ci interprétation mais man fu ñu ma booleek ay góor tëj ma rek neexu ma am fi ma am Fadel. loolu bëgg bu waaw loolu rek mooy sama problème garde bu jigéen sax gisoo ko fa la. <laughs> tey nga taamu dem ci lalu 2 millions tey ñu tubaale la ci paquet. barke yonent bi mosuñ maa paqueté mais nag boole maa góor Médoune mooy problème bi. dañ ma boole góor Médoune impro eh, moom laay waxal fii xam nga boole maa góor mooy suma problème. mais euh, suñ fekkoon ne ay jigéen la su ñu dugal ma si 107 jigéen ku ma génnee ma la. kenn ko bëgg. kenn ku ma génnee ma ray la. mais li ma jaaxal mooy loo xamul ak foo xamul te biñ la gisee ba jàppante dañ la fa yóbbu tey daa mel ni guddi gi ne man kat moom may gisee gisee guñ ma. maanaam biñ la jàppee ba sërxal la ko. waaw ne la a nelaw man damaa sant yàlla yow arène bi sax buñ doon tëdd ma nelaw. déedéet ay ah, ku tax tëdd ci lalu 2 millions ñu dugal foo xam ne tey yàgg 107 personnes di jëriñ da ngay xam ne yàlla mi dogaloon la li 2 moo dogal lal bu ndaw bi nga gërëm sant tay dem. nga war jéeg ji ginnaaw. mbar mbar kii war jàq ji ginnaaw. billaahi. waaw doo tuddee loolu. ak ñi nga tàmmee fii mu neex. Hmm. tàmm gàll tàkk kaal nga am loxo. billaahi am lu ma métti rek am ma métti rek. mais nag tey jeex na benn garde du ma appel man neex laay dem. boo waxee la nga waxoon demaat. su dee ci xam-xam rek mooy tax. amul xam-xam boo séddalewaatee demaat. non xam-xam laa wax medul. non non non non dama ne. Ah, séddale rek. mi ngi ñaaw de. ah non non séddale rek. yow ma jëlee bul mi ngi ñaaw waaw bul séddale. ndax xamoo foofu boo séddale rek dama. non man. da nga séddale est-ce que xam nga ne séddale bi ma wax dama dem ñu ne damay jàppale góor jigéen xamoon nga ko yow. yëg ko. man. nangu naa nga jàpp nit ki na ko yaa ne neen séddale protégé comprendre nga tëj ko ci loolu mais pas ay góor jigéen quand même ñu waxante dëgg. ah maa ngi yóbbante Jamra da xam nga ñoom dañu baax ñoo fi nekkal lislaam. moo tax melul melul kaso neexul boo. non non eh, eh, eh, borom xam-xam mooy wax même ma daane. fa ma jëm la. maa ngi gërëm Jamra dañu baax ñoom dañu xeexal lislaam ah. di xeex bañ criminaliser yàmba maa ngi leen di wax ne yàlla xamoon na yàmba xam na sàngara. waaw yaay waxat. ma même ma daane. Jamra mi xeexal lislaam maa ngi leen di fàttali man doomi lislaam ne bi ñuy xeex bay criminaliser yàmba yàlla xam na yàmba mais sàngara la tuddee umul xabaay nday ñaawteef neen xeex ba ba ba maa ngi fàttali Jamra bi xeex valeur. ne am na jigéeni sénégalais buy taxaw ci mbedd téye kartaam xam nga lu muy liggéey njaaloo ñu fay ko mooy cagatu prostitution am na ci réew na jamra xeex yi am na solo mais pas doom yi borom xam-xam bu mel ni man wax ñeme woo géewi xam-xam ngeen échangé nga ne ko kaay tëdd rëbës xanaa loolu xaw na nuru xeeb sëriñ Mountakha mi fi teewal lislaam dang nga waroon a yóbbu ci moom ñu débattre da nga waroon a yóbbu da waroon a yóbbu ci sëriñ Mountakha mi nga xam ne moo fi teewal lislaam tabax université bu rëy bi su ma amul benn aaya aw ma dara ñu def lu lislaam di def yéwénoo. li nu dama ko mere woon dama koo mere woon lool. biñ may duma duma yi métti kaw la ñoo àndoon. Cheikh Yérim àttewul waxu ji mais bor bu ma lebaloon ci lu ma naqari def na lu ko raw. ci naka. bi ma liiree livre bi damaa jooy bés ni gi tey maa ngi ci ginnaaw seex Yérim. di taalibeem di sëriñam di rakkam di magam di ndeyam di baayam ku ko laal laal ma. yow da laa ñor yaa ciy delluwaat yow ku bëgg jigéen barki sëriñ Tuubaa <laughs> maa ngi jégalu baal leen ma. man kay yaa ma laaj yow lay waxal. kon nga baal waa réew leen ma. xëy na xëy na xale ma jàpp dootuma séddale. waaw yàlla tere boo dootuma séddale. loolu ci man Fadel fàtte xaju fi maanoon Boy Niang. Balla da koy daan. fen yu rëy yooyu tamit. doo ma may ma diseere ko balaa may dugaat ci beneen ko daal fen yi rëy. Ah. moo tax ma ne. sëriñ si nekk si internet bi duul rek leen ma duul kat bu mag baa ngi nii nag ak ñoom bu ma laajati ci lu ñëwagul yàllaa ko xam. donc nga ni ko dangaa duul. bañ a du duul yu rëy yokk ci yu rëy mais xam nga ni ma ko waxee nii su keneen defatee neen ko defee nii rek fenn wàññeeku Sénégal. adduna mais bi ngay wax ci loo ko tegoon. ñeme yàlla. waaw waxtaan nag borom xam-xam war naa ñeme yàlla. non dafa am lu may jàngale moo tax may utiliser baat yi. looy jàngale. neen bàyyi fenn tey wax ci lu ñëw waaye lu ñëwagul dañ ko bàyyi yàlla. mais day daal. non mën a fen rek ak ñeme yàlla. non non mën a fen am na ci loo ko non jëlal bii rek. waaw bu ñu sukkandikoo ci fen yooyu kon boo nee kàpp ñu séddale ko ndax duñ jàpp ne fen la. non bii dafa teew ba lay ñëwagul du benn mu ngi mel ni kaay leen ñu añ añ bi teew ak suba dinaa leen jox añ du benn dang ni doomi géwél yow da ngaa yàqu de. waaw te dégg ñu ne fen bàyyi fen moo gën waaw waaw moo tax gisoo nga laaj ma waxuma. Ah? gisoo nga laaj ma waxuma. nu fen mel. xaraam rek jullit du fen. bi booy ñaar daanee Balla Gaye ñu la fekk ci biir prison si yëg waaw waaw ci bëti nit ñi mais dara bettu ma woon te dara jaaxalu ma. dara dara bett parce que bi ko mën a waxtaan léegi xaar ma kal ko fenn am am gàcce rek. am gàcce waaw pour ñu topp benn rythme ma ak yow. damay bañ ñu jal bi jalaañoo. Hmm. ñu mooy Tapha Tine Bombardier. wax naa ci lu doy waar. loo ci <laughs> yow yërëmoo ma. ma la yërëm. yërëmoo ma. bëgg ma delloo. mais bu ma dugal. man damaa demoon taxaw ci wetu cumbukaay Bombardier. su ma waxee rek combat bi passé mën na jur fitna te ku joteeg ab réew jubóog ñoom a gën taxali koog ñoom. ah ah lu tax ñu yóbbu ma rëbës loo ma wax léegi. fu mu nekk dóor yi tane nga. dóor yan ci. dóor yi dóor. yu kaw la ci. yooyu ci xol bi la nekk du mos a wér medu. ana ñu la dóoral. ñu saaga de. <laughs>